président Macky Sall a pas le droit et le premier ministre Boun Abdallah Dionne n'en pas le droit et la RTS n'a pas le droit et les Sénégalais ne méritent pas ça et vous le savez que c'est une forfaiture vous savez que c'est un coup d'État et le Sénégal Merci. qui est indépendant depuis 1960 ne mérite pas ça qu'est-ce qui va se passer demain je vais sortir de la RTS on va me prendre on va me menotter parce que ce que nous sommes en train de vivre il suffit d'avoir un daa ba mu mbarasee ba doyal dane cinq rek la jël xanaa def ca dikkati na nee na cinq ñooy dem aux élections ñi war a wax waxuñu waaw bun Abdalaa Joon mi sax fu mu dëkk ak ku ko yar moom mooy kan moom mooy kan en tant que premier ministre ma sa bàyyi moom réew mi na tax fu ñu bale rek nga tuur Kapıda it kaptı, kaptı kaptı, kaptı kaptı. Tütü büttü, tütü tübüttü, tütüp bitti. Est-ce que c'est le Conseil constitutionnel qui a donné les résultats? Est-ce que c'est la Sénat qui a donné les résultats?